الطالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي لدي نوري دي لين زيار دي لين بالحق دي لين بال دي نيانل الشيخ محمد المنتقى سنو برام يأكل كوفي تبيرل كوفي ba mu li mboolem ay naalam ak ay yéeneen ci liggéey Cheikhul Khadim di dolli ñaan ci Cheikh Seydi Al Maxtaar ñaan sunu borom dolli ci moom ngërëmam te tas nu ci barkeem di yu tedd yu mag yi nekk ci jotaay bi mu ngi leen di nuyu bu baax di leen di seen wàccuwaay di nuyu kilifa yi fi nekk yépp sëñ Modou kii man moom sëñ Modou Awa Balla noo ngi koy ziyaare bu baax di nuyu magi daayire yépp ak ndaw ji nga xam ne ñoo teew yi ci kanam sang bii di sëriñ Modou alhamdulillah sant yalla bi munu mayate tawfiq mayat nu dimbal ba nu dajé ci wat ak yow jotaay bi ñu di la ci ñaanal ci barké weer wi barké ñi nu koy defal suñu borom katanal la te wéral la te yagal la ci kanam sa kilifa yi ba lépp loo xam ne yéene nga ko gën bëgg koo liggéey suñu borom may la kattan boo ko def da nga ànd ko njaboot gi yëpp jàngkatu xasaa yi fi nekk maa ngi leen di nuyu seen Moustapha Mbaye maa ngi lay ziare Serigne Mbacke Niang noo ngi koy sant waxoon naa ko ci Tamba barki démb ci alxames ji na ko ku yaru nga ku baax nga jàpp naa la lool waaye dolli naa laa bëgg ngir ki ngay roy muy sëñ Xaadim Géey ay jikkoy boppam nag tax na ma jàpp ko mu yaram ak teginam sëñ Moustapha Mbay mii bëggoon naa ko waaye keroog Tiwaawoon laa ko gën a bëgg ñoo ko gisee mu jooy ci sëñ Tuubaa rek laa nekkoon noo bokk écrit yow on ensemble yow moom noo mën a mel ne xam ne ma d'accord naa loo def ànd na ma ak yow man ko fas bëgg sëñ Tuubaa rek gisatuma si sikk foo bokk ku la jur loo mën a mepp nag te soxla ci sëñ bi moom ëkk ëkku daqaar gun dagg ba mu des tuuti na sàññ li ma koy moytandikoo laa lay moytu ndax xam naa ne ma jëfa def si la dina ngay wax naan bi yi may it foofu ci sëñ bi lay jàppe ci sëñ bi lay bàyyee rek boobaak léegi laa la jàpp nga neex ma lool maa lay siyaar baax mbay Baye Abdou Samad de sëñ na ma koo nuyu jaarale ko ci magi dayrin moom lañ di gërëm ñin Baye Abdou Cuun maa ngi koy ziare bu baax di nuyu it sama xarit Baye Youssou mu jàllaleel ma ko ci ñi mu bokkal liggéey bi moom it di ko jaajëfal xam naa waxtaan wi moom bu fekkoon ne ñëw ñu waxtaan it dama fee waroon a ñëw ngir da ca wote won bis bu mo don sant seigne Touba ba nopi tudde won ko seigne Touba Diouf cant gi may sant nak day ñaar ben bi day zahirma ma bi di batin bi mako jappé tudde ko seigne bi waxna ko seigne Modou ma ko def naa de waye man xamna naa ma doon wut am ko ndax mag ni bala nga leena gëna mëna xam nga di leen fàttaliku yaakaar naa bis bi def naa ko ay at waaye li ma ci gis ci ci ren ci zahir ak ci baat mosuma ko gis nga xamal ko sama ndax maa ko doon financé ndax du ma sëriñ bi am dongo yu may jox kon saabu xaalis ci doon dem kon xam naa la ca nekk defe naa nag ku màggal ba noppi am leneen ak leneen te amee woo bor da ngay tëju amee loo kenn dara ba nga koy defit léboo googu màggal ne xam kon sëñ Tuubaa moom macha allah loolu lépp mat na waaye sëñ Modou mii ko fi nekkal ak bokkam yi mu bokkal sëñ Mor Diouf mu wane ci ak mat wane ca na mu toll ndax nit ku ne rek na mu toll lay jëfe waaye yow Diouf na nga jëfee kenn yebu la kenn xeebu la wane nga sa way jur bi yëg nga ne jataay bii nga toog sëñ Touba tax nga mel noonu moo tax nga toog wane nga ko bu baax a baax lu jëm mi gànna mi sere ne la woo jëm mi sëñ Touba mi ngi tudd te tey bu mbooloo dee raam nga yónni koo mag ku la mag nga di ko yónni ay nit di daw ci sa ginnaaw di sukk loolu leen ñaanal nu raayoo loola sëñ Tuubaa bi fa tax kon xam nga loola yëg nga ko kon nag yàlla na gën a sëmbartalu ci sa kaw taalibe it sant naa leen ca noona ndax mobilisation ba te jéggulu it ca jataay ba nag lu ca nuru woon ak yàgg xam naa moom lañ ma fay tey man sama jataay boobee ma leb la woon kama tuddin tuddaan moom gëm naa ko tey léegi naa ñu fi ñëw ay deux rek man yaakaar naa sept heures suba laa fi ñëw ndax maa nga jógee ca dëkk bu ñuy wax nan la dëkk ba tudd ah sob mbaadaan laa jóge jeexal fa ay cinq heures du matin ñëw ba ci yoon yi ma ma sopp mbaadaan da nga ñëw ba fisal nga dugg ci biir àll bi fekk far ma ñëw ba ci yoon bi kërwee te gaa yi liggéeyul nga xam ne daanaka ci oto bi laa fanaan na ñëwee jàppoon na dana kii waaye sëñ Modou moom amul lu ñuy dox suñu diggante ndax bu fekkoon du waxtaan wi damaa war a ñëw ndax Cheikh Awa Balla sëñ Modou Awa la maam Thierno Birahim kon sëñ bi noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na yàgg yow kat ñaanal la moo gën ndax sa kilifa yu baax yii ku baaxi bokk nga ñi nga bokk sëñ Mor Diouf Diatty ñu baax lañ li tax mooy nit boo leen yàlla joxe ndam ñu nangu ko liggéey bi ñu lay liggéeyloo rek doy na sëkk wóolu gën la woon loolu it xel mi dal mi ci war a nekk mooy da ko am da ko mën da fi yàq ndax ñoom duñ bëgg lu amul moo tax fi ne bay ba ñëpp seen xol sedd ci yow te dal ci ndax kenn mënu koo tee yegg ku la bëgg tënk des na ko tënk te du fa nee na mu neex moom bari na seen barke baykat ay mbubb lañ koy wane ak seeti jigéen ak téléphone ak i tukki ak di joxe cati baaraam ak di joxe ñan nit ñi waaye toog toog mag mu am juróom-benn fukki am bi jaaw ci sa wat sa wet te toppoon sa bàyyi toppoon sa ñu bari ñu ko ci génération bi toll dañoo changé soppi xarit soppi bokk soppi ñu lay jay na kon yow ku la gis gis man kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na nga yeggale bu ma xasee tudd sëñ bi dama du tuddaat keneen moo tax may wax lii ndax moom moo waral yii yëpp am démb dama daanu si bi sëñ Modou Karam sëñ mo sëñ ma Paate si di ñëw li tax a jooy ñu àndandoo di sikkar mbooloo mi dar ko ñu ne sëñ Modou Kara sëñ Cheikh Sylla sëñ ma Paate ma gis du moom way juróom kenn demutoon gànnaaw kenn fekki jiwutoon sëñ Tuubaa te way juróom bu daan dem day wari fas tey ji oto yuy raam ndànk jar téeméeri million mbooloo topp la di si kar man laje bii nag li ko tax a neex mooy bu ëllëgee yomal xiyaam ba kuréel yi def nii di xaar sëñ tubaa man de xaw ma mu ne tënk génn bisu keroog loolu la mënta supporté dem ndax man loolu lana sëñ Tuubaa laa ciy xool mbooloo mii moo tax defarul sëñ tubaa gii kaye bu neex nit ñi de cheikh yii wallahi asim ñoo bokk ñaari maam ak suñ ñeenti nijaay juróom benn la sun ndey ak sun baay ak noonu bokkoon daaraak ba muy jàngee ak damaa jàngi woon ñëw ak bu sa maam demut ci sëñ Tuubaa mën ngaa noppal dañ lay raw te doo leen jot bari addi sa rëy di poloma lépp taxut ngay ñoom ndax deret la ñuy gërëm bu fekkee yow sa deret jot nu ko gërëm fexe la sañse te mën a wax te wax jàmm ñii géwal yi def dee ko def rek bu ko defee nit ñi bëgg la ñu la may nee waaye boo leen opposé foo koy waxee tey boo ñett ñee dong mënoon ngaa yemale waxtaan bi si ñoom سيد مور جنجر سيد مور جوف جتي شيخ سادي باي لولو تي غاي خامي سيد توبا سيد توبا بن نار داكو واخني قديم المصطفى قوث الامين لسان الحال تشهد للخديم بمثل الشيخ لم نسمع حديثا ولا في سالف dexri xadimi mu ne lisaanul xaal mooy seere na ku mel ni sëñ Tuba ab nopp mos koo dégg du ci niveau yi du ca ancien yi ndax sëñ Tuba hors série la sëñ Tuba hors série la benn markal rek amut bii la nuróol amut ñoom bokk série amut dara benn la rek hors série moo tax naar bi ne ko ku mel ni moom mosi su ko dégg بمثل الشركة لم نسمع حديثا ولا في سالف دهر الخديم سرين توبا مومو خمنا ديغنت يالا رسول الله رك لا باغنت افنا الحياه بما يرضي الاله وما جاء الرسول به مفروضا ومسجونا بوغ شيخ الخديم tuddul taaju diin tuddul xutbul xaws tuddul aarif billah tuddul sultaanu nangam yooyu yëpp ay dayo la ay déguisement la ay mbubb la yu gaa yu baax yi sol di ko liggéeyale seen borom ci ban tool toolub jaamu yàlla ak liggéey rasulullah bi sëñ Tuubaa di ñëw dafa fekk toolub jaamu yàlla bii rab booy sunna si rasulullahi rab yoon wi jëm ca tool ba farga sëñ Tuba teg tànkam ci toolub rasulullah teg tànkam ca toolub jaamu yàlla wax na dalaltu aabidan xadiman bi dalil min aami ay shashin ila aami rahil soobu naa du ma dellu ginnaaw parce que yéene na maa saxal toolu jàmm yàlla bay ko ba mu set ku ma fekkoon ca tool ba saw dooñ mëtut danaa la ko bàyyal ba mu mat loo ca waroon a am ma jox la ko te féetewoo leggale gaa la ko yeggalal toolu rasulullahi bi it noonu la cay tabbee danaa ko yeesal ba mu yees leer nañ ñi ku ca soso woon te saw sas yëggul danaa la ko mottali ba noppi la ca kenn mës la bay nag doon ko fa jéeg dana ko bay ba ma man loolu moo wa qadim rasul di ko xam ne ko suñu borom jaglel mel ni mbindeef mësu koo am bokk du jar ñuy wëri bay ñu sori di ko xool nañu xooli kasidan gi tuddu khatimatul maqas ta modi jawatu bil furqan rabbiyal maani sëñ Tuba wër na fépp toj fépp door koo bind yàlla moo wax ci alquran ne yafalu ma yasha yàlla wax ci alquran faalu lima yurid yàlla wax ci alquran yaxtasu bi rahmati man yasha yàlla wax ci alquran inna allaha ala kulli shayin qadir lu ma neex def maa man lépp ku ma neex yërëm aw ma ku may diisoon lu ma namm mu am adduna jeexut te sëñ Tuubaa jëkku fi te xam na yàlla jeex ci moom sañ a taxaw ci digg bi moom Cheikhul Xadim wax fa mu dëkkaale boromam ci xasida gi di jaawartu dëkkaale na maag yàlla jaawartu bil foqaani rabbi al muayin alquran laa dëkkaale ak yàlla lu tax sëñ Tuubaa nee na raamal kitaabu kawnahu maay bila tafarruqin wa umri qad qabila sëñ Tuubaa nee na alxuraan ah, ci bopam mo sakku ci yalla and ak man te dutu tàggoog man alquran mo sakku yalla don lo mako nak ko nag kitab rabbullah bi fadlihi wa ni'ma rabbillah kon jawatu bil furqaani rabbiyan maan malatu nafsiya ab nono ngo boo xam rek day mbagnam day songé yak la ñu bari ak gannaayam sëñ Tuubaa saxoo woor di saxaw naafile guddi yi woor lépp lu bakkan di moom ndax koor ñetti daraja la am dafa am tudd mu boo xam ne day séddali ko ci ñetti xaaj mooy sawmul saw mu xawaas aw sawmul xusuus ak sawmul xawaasul xawaas koor boo xam ne nit ki day fexe ba du lekk bëccëg ak guddi mu cay mos koor boo xam ne nit day fexé ba pingé ay ciirëm waye koor go xamné moy koor ci afkaaru dënniya wa himamu dunyawiya señ Tuba fexé ba not bakkanam mune mom na sama bakkan malatu nafsi xam nga mom na sa bakkan wa zahzahtu al-ayn ma shaytan min dunyaw zadi lil jinan wan qaadali hawa ñent ñangi nonu moy ñent non yi nga xamne ku mas a jóg ñoo la teunk ku mucc ci ben wala nga mucc ci ñatt manki ben ku mucc ci ñaar manki ben sëñ Tuubaa wax ne fa nafs wal qalq wal shaytan qad faragu min qasdi durriya li dunya taqad salama sëñ Tuubaa na man mucc na ci bakkan ak banex ak shaytan aduna nag dawatuma ko diko mucc waye aduna sàkkoo mucc ci man ليه الدنيا صلاة أدنى بقوم الجمع أنا قهرت لي نفسي قهرت لي هوا والسوء والإضلال سقط لي سوا نتلو ما سما بكر نتلو ما سما بنيخ نتلو ما شيطان أدنى وتحصل أن عل يمن الله ذو الجلال بعزمتي من ضرر الإدلال ما tax ku سن ak أبنا وقديو دارير سن wax diw يلا réer sëñ غير لاتي نحن دمرير دمرير لاتي waaye ba muy wéy ci xasida ga nag di dem ba ca biir ca leeral boppam wax dëkkaale ga yàlla la ko yàlla jox mu taxaw na ilayya dégg nga uslu bi mu jëfandikoo ilayya man képp boo naan iyaaka yow rek yàlla iyaaka naabud yow képp yow rek yow dong la ñuy jaam sëñ Tuubaa na ilayya man képp man rek man dong xaadimu rasul xaadallahu ma lam yakun loolu mbokk yi bu ko doon waxtaane baat yi ñuy wax ne Serigne Touba ne nangam looloo ko gën a rëy liñ naan li ñuy waxal Serigne Touba it looloo ko gën a rëy ilay yaman képp xaadimu rasul xaadallaahu la yàlla wammatal maa leen yëkku ni lu ma sa am ñaata jiitu Serigne Touba ñaata la yàlla fal ci ay gaay yu baax ak i xej naka ak taaj yëg ma jëbaay yi waaye yàlla da ko nag fa huwa raisul awliya président bi jiite wëlli yi mooy Cheikh Amadou Bamba wa imaamul asfiya gaa yi yàlla tànn ba segg leen sëñ Tuubaa seen imaam wa waarisul anbiya yonent bu mës a ñëw aduna mbub moo sol yàlla da ko donnaloo sëñ Tuubaa wal at yàlla ko moo tax sañ Tuubaa complète bi mu ñëwee boole mbuuti gaañi dajale daal na man képp la yàlla jox kenn mës a gis te kenn mës koo gis loolu taxoon na benn baybaan yi di laaj sëñ Tuubaa na ko ndax Cheikh Sidi yaay sa sëriñ sëñ bi ne ko laa baana li kulli man lahu maqulu adna wasilati wa rasul na ko déedéet lu waaye dof dof dof dof xam na ne ku dul rasul lay mu tumab sëriñ Sëriñ Tuubaa dafa dafa am bayit woo xam ne da koo tawkiital wax yàlla ne ko sama digg ak bu ci kenn dox kudu rasulna laa taj'alanna bayni wa baynaka abad waasitatan siwal muqaddimi sax kudu rasulullah bu mu dox sama diggante yow kooku rek sama sëriñ wasilati abduhu al-muxtaar sayyidina huwa alladi man abaa taqdimuhu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo tax naar bi la kuy sa sëriñ Cheikh Sidi mën na ko déedéet mën na ko noo defal gaa yi sëñ bi na ko ñoo ci xam am naa xaside boobu da ko may laaj bi laaj ana ma dafa gaañ yàlla yi mu ne ko koo ci xam muy lim di lim gaa yi di lim ña ko ñor ba ne ba yàggal sëñ bi na dem na ba yàgg mu ne ko warul yëpp na andi ka sibiyaaru ñooñu nga may gam-gam leen ni ma leen gisee dañoo mel ni gone yu ndaw ci man manako walaw adrakani uwaysul qarani la rafaqani uwaysul qarani mo ci gëna doy waar ndax rasulullah da na wax ne xetuk yalla ne may xey ci wetu yaman boo leen dajeeg mom sahaba yi na len ñaanal mom uwaysul qarani sëñ Tuubaa na bu ñu daje woon jamono ma mom du beru day jébulu walaw adrakani uwaysul qarani la rafaqani da na walaw kuntu kadiban la ahzan la fi alhin limay wax bu ci neen nekkon yàlla gatchal ma uwaysul qarani moo daje woon ak sayyiduna ali ne leen ñu ne ko ñaanal nu rasulullahi nee na woon nga ñaanal nu mu ne leen xaqiqatul muhammadiya sirru rasulullahi benn waaye gisu ko ci yéen ba ci sayduna abou bakarin gisul sirru rasulullahi ñu laaj ko ne ko ndax yow gis nga ko mu ne ma ñaan yàlla mu dama teggil kiiraay yi dima teggil kiiraay yi dima teggil kiiraay yi ba mu des juróom-ñaar fukki junniy kiiraay mu ne ma bu ca benn teggi ko da nga ruy ni karaw bu ñu teg ci sawara sëñ Tuubaa wax ne خدمة خير العالمين أدخلت في كلكلي أسراره فدخلت مد لي المختار سرا لن يرى قط لغيري ولغيري لن ينام مرد فبرافوني دون الولاسة العظمى في حقيقة المحمدية بجي أحمدية ممشي أحمد بامبا ما موخلا وخلن أخفى لي الله سر المصون موغل يمي واي يمو جلالة سر رسول الله الميري ري سنتبانا لمونا بوتم يالله nee na yàlla bi ma ko jëfalee damaa jàmmaarloo ak moom ndax raddiya laahu joo gis wa raddoo xam wa ci topp mu ne radi raddiya an nii raddiya an nii gërëm na ma man ka nga xam ne raditu anhu gërëm naa ko jàmmaarloo jëf ahmadu ma ne jërëjëf yaa rabbi jërëjëf yaa abdu mu ne jërëjëf yaa rabbi jërëjëf yaa jaari ma ne jërëjëf ba yàgg fa qaala lii yàlla ne ma eh ahmadu ma ne gees mu ne ma sirri yaqus saay bóota ngi nii téyel ma téye mu ne wa sonxu dencal moo tax kon mu jéggi ci bayit yu jëkk ilay yaqaadallahu ma lam yakun yaa yàlla jox na ma lu kenn mës la am benn naar ne na fa la ma laqaytu acheikha ahmada burha nafat yamini min xubaaril mashayixi ba may làmb ci adduna ku ma gis jeex ba daj sëñ Tuubaa damaa yëlëb bàyyi ñépp sëñ Moussa Kane ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa faas taraw yaarami faas it wari jaani ma kunaas alam tara aynaaya misla cheikhi jamaalan wa kamaalan wa saara wasqi sama ñaari get mës la gis ku mel ni sëñ tuba na sëñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen yër mbindam yi borom aras mas da daan muuru yor rawan yang ko dan fitti walum day joor bu muuraay ga ne lamset sikkin ba ne laas di saf laari wurus moo ko jekkay faas xeesut ba ne pecc fa aw ñuul yaram tax fitam wa gën a xam capitaine wari yu soldaar ci kun lay téléphone xel ma rew na DPS xolam baa gën a réer làmp bu ñu jafal mees bu cër yi nelaw it bu gët yi nelaw cër yi moom ma ngay bu cër yi nelaw yi moom ma ngay xool bu nekkul di taalif it ma ngay yëri mool bu gët yey nelaw it ruu ko dem aras moom xanaa war na ca alburax waxay zoom te lay laa du ko tee dem ca pays diiwaan paas yo ngi nu sakkal rijal ya lay naan koo koy daam ilay yaqaada allahu ma lam yakuni li ma am kenn musu ko am tuddal ku la neex ilay yaqaadallaahu maa lam yakune tax yusufa ibn ismail ibn bahaami ca liban bi sëñ tubaa nekkee ci géej gi jamono tuut ak rasulullahi waaye fekkente naa sëñ tubaa jamono egg na ci njàmbaaram bu masa sëpp xalima gi ci daal di rasulullahi jox ko loxo moom anna bahaami sëñ bi ne ci géej gi mu dugg xalwa laaj suñu borom na ko ndax li ma tagg rasulullahi am na ko tagg lu ñu toll nee na ki ko feeñu mooy yenente bi na ko ku ñuy wax ahmadou bamba kenn jotul asakaar waaye taxul mu dagg de demal jàngi karaamatu ahmadul miski ko bind dégg ba mu nekkee liban sëñ bi dem ci géej gi ba ñibbi si nekk njaareem annabahaani moomu am problème nekk ci jafe-jafe xaalis ne ca liban kenn du Cheikh Ahmadou Bamba kenn du Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa ne ca njaareem di jàkkaarloog nabahaani baara woo mag ñi ñëw mu ne inna dayfa haada xat ataakum di jami xamataalibukum gan gii ñëw tey andi na loo leen di sàkku Mor Diouf mën ngaa ñëw dellu sowu jant yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sëñ Mor na ko am naa li may wut mu ne ko waaw ah, mu ne ko waaye daa am ku sëñ Tuubaa duyel say àndaar ba mu fees mu ne mën ngaa dellu mu ne ko daa am lu des mu ne ko lan mu ne ko sowu jant ngaa jóge damaa bëgg kenn di fa dee di dem sawal sëñ bi ne ko moor loolu lu ñu jaayante liggéey la mu sóobu waat daal tër bi ñetti at ngir waa sowu jant ba señ bi xey waat ko mu ñew mu ne ko moor ñëwal del yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la li nga doon sàkkoo ngi sa loxo suñu borom def na ko mooy lan la ci doon def mooy lu ma delloo sawu jant bu ma fa fekk kenn wala kenn fekk ma fa faatoo fa di dem sawal ku mën a am ku mel noonu te kuy wut xanaa kuy bëgg a añ ku la sarax da ngay lekk doo tal keneen waaye teg ndamul taranga na la lekkal andim raxasu nga ne ko déet duma mën a dama bàyyi ci kër ga ñu xiif dama bàyyi ci kër ga ñu xiif naa dem ca ñoom loolu la sëriñ moor def jërëjëf damaa bàyyi ci kër ga ñu xiif du mën a jëfandiku te ñu ci kër ga jëfandiku mooy man moor Diouf rus na maa jóge ci sawu jant te dellu ci réew ma kenn di faatoo fi ma nekk dem sawara ñu koy laaj ëllëg rus naa loolu xoolal garanti bu wér nii takkal sëñ Tuubaa ay néeg ca njëriñ néeg yu sell neex a jaamoo yàlla Cheikhul Khadim génn di wër néegi sëñ Mor ne ci mbooloo mi sëñ Tuubaa wër wër ba mu nekk ko wet gu mu jëmlal fa daal kabar allahu akbar allahu akbar Mor Diouf gërëm naa la gërëm naa la gërëm naa la Mor Diouf yaag seen duutoo leen yàqu adduna ko laxee kooku assurance tout risque la tout waaw tout risque la am na ñoo xam ne li ñu leen tege ci ordre yi ordre yi ñu leen teg melo yi ñu leen teg fi leen di jaarale mënuñoo jadd garanti ba daan na ko jullee naa leen ku fi jóge woon tey faatu yi jullee naa ko xoolal woowu melo xoolal jooju jëf xoolal boobu tolluwaay xoolal woowu melo Cheikhul Xadim kon man nga caa gisee ilay wala yakunu abadan li mumkini mbooloo mu dul jeex doxin dul jeex da cay feeñ sëñ Xadim moomu toog maamam Cheikh Sadio Mbaye sen Tuba dana ko doxal lu julli mu ne ko kóllëre gi jité lu julli bokk ci sëñ Tuba julli ba nopi wog mbub ma wéq tànk ba ci penk bi mu ne dëng mel ni mu dënd mu ne ko saaji xam nga lu mu mu ne ko makki buñ ko xamé jël mu ne ko kahbatu rasulullah tax nga gaagaw sa borom ne bu la nexé ma ñoddil lako ko Tuba kabar ci njëriñ di julli Cheikh jaji bi su korité Cheikh Sadji daanu xaaju ci bir mbolom mi bi sëlmi na ana ko doon yëngu ana ko doon yëngu sëñ Mali ne ko bu ñu amee ndigal wax la mu ne ko am ci ndigal mu ne ko Sadji Mbay mu ne ko Sadio loo doon yëngu mu a ko damaa gis bi nga kàbbaree jibril alayhi salaatu salaam yor yére yu weex tal na rasulullah la ko rafatale ci bisu koor yi nii mu ne ko demal ceeti kuy nëbboo kuy feeñal lu nu bokk fan ne mooy Bambey sëñ bi lu ngo allahu yuulika fi daarini marghuba ata takuna lana al akwaani mahbuba Sadio yàlla dana la jox loo bëgg adduna bépp leen di xam promotion sëñ Tuubaa ko demal Cheikh Sadio ata takuna lana al akwaani mahbuba adduna bépp dana la xam adduna bépp lay xam saa ji sëñ Tuubaa ne ko jëlu benn problème maa lay dénonce adduna bépp lay xam atta takuun la dal ak waani mahbuba te ñëpp lay bëgg yow Cheikh Sadji moo tax Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina mas naa wax Cheikh Samba naag cuun na ko na ko xam nga Cheikh Sadji Mbaye mu ne ko dese naa koo xam ne mu ne ko fasante nag moom kóllëre mooy seddale reeri àjjana yi ëllëg Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina koo xool mooy seddale wala yekuru lay tabbi rek ci aw melom ak doxine sëñ Modou me toog bo xoolee sëñ Mor Janjar lu ko Cheikh ibrahim Fall wax la tàmbalee ci pom ndarba ba ci lampu ngorba lu fa way jamu yalla fayé nañ la rafaate na la ko Mor Janjar xanaa mo waral gars nan la waral doxé waral bopp saxaar bobé lolo indi bir mom jox nañ la ko na lañ ko nañ ko pom ba ci ndar ba ci lampu ba ci ngor lu ko Cheikh Rafal lu fa way jamu ولا يكونوا بك يسن بي دفر موتا سن توبا نا حويت ما حواه السابقون وجاءني قوم مرافقون كوفي ما نيو لو ام ام كو ام لو ام مر يو ملني كين امولين مر مو تك سي لامب جي سيتال منو اندي مر نيو ملني ولا يكون ابدا لي ممكن موتاخ جيف جيم ديفال يالا كين فيكو سي شيخ الغديل مام كيب كو ديفال يالا ديفال كو رسول الله صلى الله عليه وسلم ني مو اندال الك لا ني فاني ëllëg la xam mbiram ñi tàmbali garantie ci tay te ëllëg ñëwugul ñi xam ni ñuy doxale te ëllëg ñëwagul boole liggéeyal Serigne Touba boole sonn boole xiif boole mar boole laxasaay Serigne Touba moom moo nga xam ne moom ëllëg lay réglé ëllëg ëllëg waaw loolu la waxoon maam Thierno dana ko Thierno lijjanti leen man ëllëg bis ba laay lijjanti man ngaa régler situation yi dinaa toppatoo fële Cerno Ibra Faati moomu ku am teeli bi bu ni mel juróom ñetti fukki at yi manqué ñeenti weer la dundu ci àdduna ñaari yoon dama sa tiim ba amee ndox fay ñëw borom daalul moxti شيخ إبراهيم جوب المشعري نانا إخوان خديم المصطفى كلهم كبراء لكنهم باتفاق أكبر الكبراء نانا سن توبا أمو تشوما واي غاي ما سن نانا تشرنا يغن ما من تشرنا يغن ما هديت حققت صدقت شرعت فما في حب أحمد الشيخي من يدانيك يا بولا سني حقيقة يا تشرنا بغ سن توبا كين دوكي دندك يو كوكو سن توبا وو في 10 août 1895 aduna di yëngu tubaab yi di riiral nasaraan yi taxaw ceddo yi ku mata rey ñu rey ku mata dàq ñu dàq ku mata génn ñu génn cerno toll ci 30 ans sëñ tuba jël tànkam teg ci jégal ba jël loxom teg ci bopp cheikh moustapha jël loxom teg ci bopp sëñ fan denk naa leen yàlla ak rasulullah ak seen bay cerno na gees borom dara na ko cerno mu ne ko mbàkk mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom daan na wërëj njaboot bépp kott sëñ tuba kott borom dara mokk yoon ñëpp buuf ci kanam borom dara borom 30 ans assumer responsabilité kam amul lu may moom kam xamul lu may moom di Cheikhul Khadim wane ginnaaw jëm ci ñoo xam ne ku ma sa daje ñun dil siwo bëri loolu bu ne man nga koo dégg ba mu des ba tubaab n'importe qui n'importe quoi koo ma ne maamam daje nag tubaab bala cay topp mu mbirëb sàngoon na faatu sëñ tubaab ne tëgg leen làmb ji fu leen neex fu ñu dem may daan ndax galab bi muxtaar rabbi lil ina xam na zuhuri laa ulaa ki man ana yàlla ne ma bàkkul ahmadu yaay daan moo tax sëñ Moussa Kane masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ci jiy sasine ñu wan ko fa lay xaloo xew ba dem Touba ne mënoon naa wañ ni koo foofu waaye kon du am mayem yii mu am mboolee jaloo yi sëñ Touba billahi faaraqtu nasara jeewal yi wa xayri xat an bi la tanawul yi sëñ Touba ne na jeewal laa tàggoog nasaraan te yuruma gànnaay yor awnullahi wa war ko muy naaru boromu selwa bàyyee mbooloo mi mam cerno bi rek borom dara noxti borom daru des ci tool yi ab nawet la war a góob baa mu déqi ceddo yi sàmm tool yi dàq jur gi ci tool yi maam Cerno Biraay yi ñu lekk tool yëpp ci Jolof borom daru xëy sa takk bagage lekk leen joxe ordre bu kenn dëkk Tuuba ñu boole lii ci ay loo lii ci ay mbaam suuf ko fan la Cerno jëm fu mu jëm ñu ne ko du fu borom Daaru Muxti jëm ñu ne ko du fi mu ànd ak njabootu Serigne Touba gi Cheikh Moustapha al Karim Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara soxna Fatiga Sidi Mouhamad njabootu Serigne Touba gi yoon ñëpp topp Cerno Ibrahima fu mu ñu ne ko bu fi wàcc Sëñ Touba na ko bu Touba jàpp ne moo gën Touba bi ne kenn du dëkk Touba loolu moo war a xusuur yi xallat wal ahlu an di tafaaraxat li maddaxi ladi anhu mad yu xasiyu taalub Serigne bi daal di fay fa Touba fan lan yabal Cheikh Ibrahima fa ñuy wax guy ngura ak mbay dee la ku fa mës a dëkk ceerno na fa sëmb njabootu seigne touba seigne sëñ Mouhamadou dali tawat Cheikh mustapha tawat seigne Fallu tawat seigne bara tawat Cheikh Mouhamadou bin bara bi mu ci tawat ji borom daarul moxti lalub deram julli ñaar nak rongo ñu soti mu ne sa borom bu sa kilifa gi naree gel ci ma di laax ak gi na ñak mu daw balla mi mam am rek lay door gis naa ko ñàkk baa ma ñàkk sama nday ba man ceerno bu ma fi fek waye bu doomi seigne touba fatou ma di fi nek ba sa dom ba sa nday booba sëñ Tuubaa ma nga toll ci gistu balaa al ankabut ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim booba ma nga ci dam yu ahli yaqi rasulullah bi buggutul dara jéggi étaan set ba dara doxatul digganteem ak yàlla dara desu ci moom xol bi set na dara dara dara محق محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهل والولد دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا قديما له مسكان لسنا دو دوام دو جالبي دو ألال دو دارا لب سك خلب رسول الله ركا جنك يا الله نكو يا الله منا منكو نالا نك تواتا جابون خلو ومالا برم دار المعطي تبا بي دي جل دي جيتل يري ستال دي كو سيني فخ غير بكو تيتل وايسي موسى كنين mësula tiit du jaaxle ma séfu ko kalaame bar moom baax bu ne soxna Faty Issa doo wax ci tubaab bi yeeg sa sa doom ji ñu yóbbu mu ne kooka ka ko koyee ka di yóbbu muy cerno ko yar ku mu yar doo ñàkku fit borom dooru du raf boo demee ci archive nationale keroog bis borom dooru yóbbu lettre bi 10 août 1895 am joojale bi mu jaaree Louga ci Leclerc dañoo jël juróom-ñaari tubaab wala juróom benn ñuy kupp maam cerno mu muuñ tubaab bi ne muuñum cerno mi yàkkal ko suuf su muy muuñ lu ko tax muñ na sëmm ni jang rek borom darul maxti njàmbaar ga mat mu fexé ba cheikh am nopi noppi sëñ kamil am nopi sëñ jël sëñ tubaat daaru ma naan téye mbolom dara soppi ko toj xabban toj fu ne moom ceerno birahim bu guddee muy jàngal xuraan di jité ci jakkay yor njabootu sëñ touba te ko sëñ touba ba dara manqué lan lako ko al alawi wax abdourahman al alawi borom nusxatu nadim rabbal muridina wa aqlal banina yar na murid yi jàngal doom yi jamono yi sëñ bi nekkee ci géej gi te dara yàquwul mu tenir sept ans mu téye ko yoon wi ceerno dégg lu ne ceerno gis lu ne mu muñ seere ko sëñ Tuubaa di ci liggéey di liggéeyal sëñ Tuubaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tasaare këram jël njaboot gi séddale na kii dem fii na kii dem fii sëñ Tuubaa képp ba muy dem kenn du lom noonu samaan yaxi jahim yoo xam ne benn bis bu muy yend ci luñ julul bakkanam amul bokk yi ak tàggoo amut murit ak tijaan xuloo wuñ murit ak tijaan séparé wuñ tijaan yi julli wuñ jëm penk nun ñuy jëm saw kon noo bokk benn penk kon tàggoo ñooy jàng kamil bi alxuraan ji ni jàng ji ni jàng ñun ñoom lañuy jàng xanaa tàggoowul weeru koor yi ñuy woor lañuy woor wóoruñu soxbaan wóoruñuy woor ramadan wóoruñu ramadan ñuy rosoir ñoo bokk wenn weer bokku yenn tebes bokku penku buñu jëm di ajjana mbak taggo amu xar bàkk sëñ yi leen mën ta wax ñaka wax ndax football ku duggal ñu ne yaay mir lool rek la mais ñepp gi ci match bi ñu ne yaay miir yooyu dañ ko wara setan ay taggo wuñu yëpp ben lañ ay bokk la ñu bokk diine ji xajjo wuñu xajjoo ñu jànguñu alquran jibru wuñu saw ba gànnaar di julli ajiwul mak ñu baña a aji tëbaski wun ñu bañ a tëbaski noo bokk fukki football kat ak benn dugg ci terrain di naxante nga dugal ñu tànn kenn meilleur joueur wax kenn meilleur buteur mais qui est le maire Cheikh Amadou Bamba le meilleur. ñii dañoo raté seen i occasion ñii raté seen i penalty kii def Kaaba Ka Kaaba Ka Ahmadou Ba tax équipe bi am ndañ. maa ngi taxaw si sa gannaaw.

ci wilaaya la ma wan dindi la woon wacca ñoon def fi la neen di ma ko wan ki ma gisee la ma ta xam sëñ Tuuba sëñ Tuuba amul morom bala ma ca ngay fekku te dina bii morom tooñoo morom tooñoo borom te ñun ni tooñu xam ni borom maqaama am nay karaama nee leen garaama maam Cerno Faati bay si awa balla mu du awa balla awa balla ku ma ku sopp sa awa balla dugal taxaw na te ma ama am leen garaama nee leen garaama maam Cerno Faati yaa jëkk a dem ndar ca kër borom ndar ah, bu Bamba soxlaa yow lañ yàlla loolu moom Cerno Faati yaa tax ba waa Ndar di way di si kër ba tey di wut kër moom Cerno Faati bàyyi seen mu dawa balla ku sopp moom Seex Awa Balla jugal taxaw ñu magal bàyyi seen mu dawa Awa Balla yaa tax ba waa Ndar di way di si kër ba tey di wut kër moom Cerno Faati xadaa jaati ilal jannaati ci barke bay tenaat Ibra Faati def leen ni ñu magal bàyyi Seex mu dawa Balla Mor Gueye am café Sëriñ Bamba noonu sëriñ Daara Moor la tàmbalee karaay ba ba ñëw fii ci géej gi. maa ngi déglu ku fi faatu sëriñ Daara Moor a koy ram ku sopp sëriñ Daara Moor dugal taxaw ñu màggal sëriñ Daara borom gerte mooy sëriñ Bamba man na sëriñ Daara Moor. Dakaaru Ndar ba géej ga ku fi faatu yaa koy ram damaa bëgg ñu jox sëriñ Gana ni addi sëriñ Tuubaa. Ah, maa ngi déglu xam la ma tax.

sëñ Fallu dane sëñ Tuubaa dañ naan ko nikk na ko nankutum na ko katiyu na ko taraw gis sëñ bi kenn du ko jàppante ku ne nag fa sëñ tubaab féetale muy sa bunt na nga ko bokk yi ab sëriñ yombut rawatina bu baax ba te ñi bëgg a doon yi sëriñ danoo bari léegi léegi koo séen rek ab cheikh la bëgg a doon waxtaankat yi ay cheikh lañu jàngkat yi ay cheikh lañu duruskat yi ay cheikh lañu président daayira yi sax jawrin jawrin ji ay cheikh la ñu doon jël kol teg seen baat nga xam ne doon na ngoo baas jàpp ne dangay ngay joxañ rek léegi bu ñëpp doon ay cheikh kuy doon sëriñ sëriñ yombut ku sa mam taxaw na sëñ Touba bala ma delu fu mu joge won damay dang may defal ku fa fatou dem sawara xam nga ni ko aji ci do yo nga yor original nak, diko jeggi dem ci pakatu yi day yak sa deub kat yi daño bari ñi wote ci sëñ bi tey sëriñ lu bari ta duñu ñuy gak gàkk tek yoon wi rek ñoo ko waral dañuy ànd ak ñooñu féetewul fenn abonewul fenn yi liy métier woo mooy ëskey fasaale maa ngi sa ginnaaw jëwriñ a baax bul ma fàtte bokkunu ci benn day ëskey yi kese rek ni sëriñ manqué la taalibe bu dëggal manqué murit bu aman a toll foo toll am connexion te doo joxe cotisation ëskey dëru taxul dara sotti ak fasaale noonu lay fasale bala ngaa faslu da ngay teg tey la journée bi lu ñuy cotiser nga matal siyaare sëñ bi bokk jotewul ñoom ñaar de cotiser siyaare sëñ bi door na fasal leen ma waaye envoyé ma ko ba noppi activé woo ñu nga koy sa bul tuus joxe addi kii bi nekkul en ligne la ñuy wax ab murit àll ligne am mooy addi na nga dem ci sëñ bi siyaare bi bu ko defee ñu ne mi ngi en ligne mais banku fa nga banku rek loo liggéey lekk loo jur tudde say bopp say say bopp loo jur yaral sa bopp boo dee murit doo saadix sëñ diw amul moroom te taxaw mu daan sama sëñ bi de gone la waaye sax wuñ ko sax moo ca man luñ ko laaj mu def ko xanaa yëgoo li ko bàyyam liggéey liggéeyloo te tegoo joxewoo dara bu ñëpp mel ne yow dam dam du am ndam kat bu ñëpp melee ne yow sëb sëriñ du am moom te publicité nga ko nag ba ñëpp di xaar te joxe woo ab sëriñ yombut kuy sa sëriñ nga ne sëñ Modou juuf moom sëñ Touba koo xam ne moom ñëpp ko wóolu demal Daarul Muxti ba demee laaj leen kan mooy sëñ Modou Diouf mooy sëñ Touba Diouf ka mu nekkaloon du nit du du moom du n'importe qui Cheikh Moudou Awa Balla ma ne sëñ Tuubaa moo ne ko bul jañ bul ñoddi maa la ameel jañ ak ñoddi sëñ Modou daa waggar sëñ Tuubaa waggar bëgg ko fonk ko jàpp ko ngir melawu ne ci moom koo xam ne ba muy wàcc Daaru Muxti di ñëw jar na jël fukk ñox weccee ko fukk ngir jëmmam ku mën a wecc fukk tuutoo waa léegi ku malaaka yi rus nag nga xam ne malaaka mi yor faatu sax daa rus sëriñ sëriñ Tuubaa yi xoola woowu melo koo xam ne doomi sëñ Tuubaa moo seere lu mu wax dëgg la ñuy séntu weer yi ku ne naan moom mi sëñ Tuubaa lu mu wax dëgg la ku am ku mel noonu looy wëndeelu ci mbedd looy langaa mbiitu looy doyee di ba nungoo wax sab sëriñ nit ñi léegi seen sëriñ yi seen dëkk yi duñ ko tudd déedéet fi ne da ngay dëkk ca xujañ wala nga dëkk ca dëkk bopp na mu soree ñu naan la foo dëkk nga boori Cees seen dëkk yi dutuñu ko tudd léegi nag ku nu mu mën a tudd sa dëkk xanaa boo amee ñu financé la loolu dañ ngi defar sa dëkk nit dafa war a identifié foo dëkk nga ne Daaru Salaam Diouf murit day ñeme lool kuy sa sëriñ nga ne Cheikh Sadio yi ku si sëriñ nangam ngemeem sëriñ waaye waa Daaru am na ñoo xam ne ku sëriñ waa la ñu waa Daaru kenn xamul ku fa si sëriñ loolu nag nee naa mooy luy sa numéro nga ne Tigo Tigo yi kese taxul kenn jot la ab murit it du sikki sàkka ab murit du deng deng juróom-benn yi yàqu murit mooy sëñ bi daa waroon sëñ bi na lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bi murit laa waaye sëñ bi kippatu sëñ bi toog daara ja nga ne daa war a ñëw ci dëkk bi sëñ bi ñëw ci dëkk bi nga ne ni mu fi ñëw daa bari sëñ bi noppi nga ne daa war a wax sëñ bi wax nga ne yii yi waru ci woon a dugg sëñ bi sàkk jëwri nga ne ah man de sëñ bi daal sëñ bi daal murit laa waaye ci put day yàq ak murit te moo bari léegi moom la ñuy waxtaane ñenn ñi di catu sëriñ si duñ leen jox dara gis nga bi sëñ bi yor fa yii te jëndoo te bu la seet see doo joxe gaas woon non temps yi si bu baax la laal sa moroom ak ko jox boo ko ñëw ci jéem koo ñaan joxe woo addiyee bi cax léegi murit googu la ñuy dund sëñ bi sama xarit la bu ma seet si sëñ Moodu ñu ne tëju na nga naan moo ne bàyyam daw tëju de sëñ Moodu li ñu yanu bàyyam yenu ko du bokk yanu bàyyam la sa yan yan sa yenu bàyyi ku du jël sa sa kaw nooy woyof le ah wax yàlla sëñ Tuubaa bi ku ko yanu boo ko di sëñ Moodu bi yow fooy woyofe loolu lañ xamul ba noppi ngay daw nga ne seigne bi da wara genn bo bokke ak mom agn bo genn sama gaay la seigne bi ñoy bokku len ndab ngemee tëdd ci lalam ngemee caa tok mam cierno borom daaru Moxti boo demee ci wasiyat niswaan seigne Moussa Ka neena dañ koy bi bisu tal talat am ci ku jël setal ak borom daaru bi jëm ci wanawi am ku ne borom daaru ndap len ko bu duggé ci wana wi ak setal bi melni ku jël ndayam dugg mom ci néeg def ci def ñu wasiyat ak ab sëriñ daa laaj war ma wa gaayatu tawxiir waqir cheikhaka wajaalhu sayidan wa hab lahu xayraka sëñ tubaa nee na war ma booy war maal jeex waggaral sab sëriñ defal sëriñ sëriñ mi sa sang lu baax loo am jox ko fajal ay hitteel bil basdi wal khidma, di ko lëggéeyal te di ko jox buñ déglu gaa yi waay ñi naan jigéen ngërëmul goram këram jëriñu ko dara ab sëriñ mënta jëriñ ab taaliba dara dañuy fen ab serigne mom fim tambalé mi ngi ni wuyo sante di la liggéeyal dañ ko mën tam gaañu ñu bëgg dag rang gi té kenn du leen rang seen xol jeex jàngi ba sa bëtt katara kenn gëmu nga nga tàmbali serigne sëriñ mbolo top ko nga nan nit ñi dajalé té te duñ leen nangam té yow kenn du la wër kafteer bi nga tangal ci takkusaan gi té ko du jeex da fukki nit ñuko nan naan amoo dix personnes ñuko nan du am kenn do la wo bo ñew du la xalal amul kuy top ci yow amul kuy yow sante nga naan su ma la solu na yemay si ani gis nga ñi gi yor dañu koy laaj ëllëg baax na yow mi am dañ lay laaj képp ñu laaj nan wa lu fi dagan dañ koy laaj lu fi aram dañ koy laaj ginnaaw dañuy laaj rek fexe laam ñu laaj la yoru ñaar dërëm ba nopp ñu poñal na la doo jàll nan fonk sunu kilifa yi te jàpp leen te xàmmee ñi ne ci yoon wi tey dóor te ajuwul fenn murid yi nañu boole liggéey ak jaamu yàlla ak jàng xasaay yi yoon wi yoonu liggéey la Cheikh jenn sëñ Tuubaa dana ko Issa ba amul bu mu ne ko déedéet mu ko boo xamee wàcc ko ku dul liggéey ñëpp ci dimbali xaaju dul liggéey bu ñu doon liggéey yoon wi gën a dox ku liggéey nooy bindoo ci daayira ku liggéey nooy tege ku liggéey du lay saxe ku liggéey nooy siyaare jee nañuy liggéey waye dox rek doo nangoo liggéey loo sanc tay bu suba nga sanc len ko sir mu sol lu rafet nga jox ma barkel barkeel nga xam ne système yalla yalwaanum secret kep la jox ma barkel barkel ken duko laaj da ni bañ jox la waye ginaaw liggey yo ak bi bax nak man man mi ko wut la gëna bax ci man man mi ko tànn na ni liggey gaa ñaa ngi di bolé filmé di caméra di jang xassay di liggey na ni liggey ne ci kër sa bàyyi yeewu ci suba xëy nga bangeeral ci kaw lal dongeeral ba onze heures nga yeewu di seet cafetière bu des café boo naan koo amul barkeb sa bàyyi ngërëmam fooy jëm doo siyaare ji doo joxe addiye suñu journée ba neex na te tegoo bokkoo sëñ Tuubaa nee na ca la bokk ca la bokk te sa dara newu ca ba bi si payu ba yii di alerte di ñëw daal niñ koy fexee fële nan doon dëgg-dëgg ay mur nan roy mag ña nan roy mag ña sëñ xalilu sëñ Moussa sa daf may nekk ci barki démb kenn ci mag ñi bi ko tubaab yi liggéey mu ne li ma sëñ bi sant xoolal pasta que si mag ñi yi sonal ko lool looy liggéey mu ne li ma sëñ bi sant doom ji daan ne leen milice la mu ne lu mu leen wax ñu ne ko nee na nga mën a ci kaw sëñ bi sant ma bu ma ko sëñ bi waxee laa koy def murid day gëm day gëm tey jii bu ne woon mbubbum sëñ moor guus jëttee ngi nii ku ne naaw ma barkeeloo ko sa mbubbum sang ba xooj ko ñii naan boo dee ñu suuraale ko nga ne ah sant naa yàlla mbubbum sëñ moor mbubb moo mënta gën a for dere ku mën a màggal ab forog mën a màggal jëm deret sëñ Mor moo gën a for mbubb ndax sëñ Tuubaa li muy def di ko ci mbubb ma ci deret ji la ko jox ku ci juddu bokk ci nga mën a nekk daan kaddu gi sëñ Mor wéeru woon na ci kaddu gi ci la sëñ am naa bant nag nangam suulaale lañ ko diw taxe na ba noppi te faali waa kër foo koy jël mooy ñii leen morom nit ñi goree diggi daa bari léegi goree diggi daa bari doo dara dara meloo nenn sëñ Tuubaa rek a fi nekk nan gore delloo njukkal waa kër si Amadou Bamba nan delo njukkal wa keur cheikh amadou bamba nan bayyi wa keur sëñ touba ñi ni dir mbag wa keur sëñ touba ñi ni fonto ku wax rek nan serigne ci serigne ci serigne ci serigne 1895 fi sama neewon bi sëñ touba di dem géej dene xim ñi di sam ñi di bay ñi di commerce sëñ bi ci sedde le xéewal yi lek ci ba rek rajab ko lu fete wo lu moy di wëlbatiku di xass njabootu sëñ touba ñak jom ma ngi len di sante di len gërëm sëñ Modou sunu xol sedd na sunu xol sedd na lool yëg gi mat na rafet na li ma la ñaanoon rek yàlla na nga yeggale daal yàlla na nga yeggale gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp xam ne yittee bari ci man yàlla xam na ne kilifa gi may woon yi sax mi ngi woote rek sëñ Darou ngi di ko wuyu muy sëñ Abdou Lahatum sëñ maam moom sëñ basum sëñ mam balla mam mor jaara dama ko waxoon na ko 23 jàppoon na dana mën a sotti waaye noo ngi jégalu bu baax a baax na ngeen ma jégal sëñ xaadim noo ngi fedd di coloré bu baax nday dëkk bii sa way jur laa fi jëkk seet si sëñ bàcc sëñ bàcc ku yéeme la ci gént laa ko gis booba maa ngi ñaw yor batal fora bu ñuul da ci kën di ngub seng kenn pérongu ko may fay demi luyas ta duma matal bu événement ñëwee lu mu reey rëy ñaari complète lay am am 20000 fofu la ma sëñ bi fekk ma man señ tuba avant moy joxe 4 4 ak étage fo bëgg tukki tukki bo lambé sa boss fajj dara nga xamné bu néwon ko ami million dé ci ñi dé lay bok bi ma daan jëlee foofu xam fa la ma fekk néegi ñax ay baraan yu xam boo añee doo reer sondeel bi day jeex tak nga jëlaat këriñ def ci ngir mu gëna a fofu la ma ay lamp yu leer yu bax laa xam ngeen ko sax ñu sama kër gis nañ ko defuma ci sax karo fo fofu la ma sëñ bi fekk tabaski jot ñepp di tabaski do tabaski màggalu Touba jot nga dem ci dekk ba di ñaan ñay fess ba nopi te do bram ñu may la ci ndawal ngeen di tok fofu la ma seen bi fekk man fi la ma seen Touba fekk waaw moo way ke di wi ji wax naan ku la am duutu ñak bay xaaraan bi <laughs> loolu man sama bop la ko gawee jeema jaral nga dul xaaraani Seexuna Bamba moo am yuutu si yonen te misaal mi lu wenn fil xurayni boo ko fàttee mu fàtte fàtte lu say mbir fàtte fàtte war nga foo moom képp baax yàlla na sëñ Tuubaa taxaw ñu ngi siyaare sëñ Moodu baax la bokkam yu baax yi sëñ Moodu Diouf ñoom ñëpp ñu leen di siyaare baax jërëjëf bàjj laa doon wax suñ bàjj ma gént ko guddi dama ko gént rek xëy gis ko mu sol guddi gi ma ko géntee nettali ko benn waay ne ko man damaa gént gi ma ñëw mu romb ma sol ay visual yor ab maylus bu ñuul naa ko gise woon man nuyu ko ne ko mbay mu ne ma yaa nekk fii mu ne tekk ba yàgg mu ne ah barke Cheikh ya, Sadio yi nanga wax baax dal di ñew nak jalañ ci man dama kay ma wax la sa bàyyi te kenn du ko dindi net li ma ci Cheikh sadie lu bari moté magalam gi ma ñew fi bis nit ñepp di siara nak ma jub ko mu ne ha ah, dal di tekki mantar bi mu takk booba ñent nit xamuma xana auto bi ma duggoon rek comme ni ma koy waxe maa ngi tàmbali ci waxtaan yi leg la wax sax ñu weddi ko waaw ma sax yaa ma tànn ndax yow ma ngi ni xam naa la ta xam gi mala xam xam nga baxna waaw waa ah, te booba man ku mel ni ku mel ni man xawuma sëñ bàcc daal dina ma daal di tekki montaram jox ma na ma barke Cheikh sa yi fekk montaram ngi dox bay dox moo tax barki leen bi ñu toogee fu ñu xaw ma fi ñuy waxtaane gars yi naan xaw ma nit ñi wut bay rek yooyu ma ne man loolu damaa jaaxal man mosuma wax kenn ñaanal ma ma am bay rek mosuma ñaan ngir siiw wala ñaan ngir dara man am ah, ma yow sëñ bi fi la jëlee ku la fa jëlee indi la fii lu ci sa yoon boo ko ba ñëw fi door di may ñaan newe fi ak ñoo di tawte di fanaan bicc ñaan lu ngir ñu la ci nga jógee fa door di ñaan moo ko def kon loolu moo tax ma di ko fàttali man damay wax sama sama arrière passé ndax tayee tax loxob kenn fekkuma ci nag ku dul daam boo ñëwee sama kër boo woyee ku sant Mbakke ñu ne waaw sëtub Cheikh nga fa Mourou Maxtaar ko jur Cerno te sama sëriñ ba ma ko jox dana ma sëñ la gërëm jox la ko ma ñëw nuyu sëñ Abdou Samad mu sëñ Chouaïbou ànd ak sëñ Mor sëñ Abdou Samad di ma xool ba yàgg mu ne ma da ngaa denc soxna sant Mbàkke ma ne ko déedéet mu ne ma dara ci Mbàkke daw say la ma jógee fa ci timis gi nuyu sëñ Maxtaar mu ne ma sëñ Touba nee na ma biig ma may la sama doom ba jox naa la ko wax jaara Mbàkke maa ko woo na ko sa bàyyi may na ma la ah, kon fa ma jëlee fii xaw ma fi fi ma jëlee fa ma jëmee waaye fii mu yem ak man baax kon sëñ Modou looloo tax sant nañ bu baax na ko na ma sa ñaan sun borom yagal ko fi te wéral ko yagal njaboot bi barke cheikhul xadim nit ñi lañuy wax seen dembu wañu dara nañuy wax seen dembu nañuy wax seen dembu suñ tubaa jagal tay rek ah eh, ngay kol rek naan kenn musuma dimbalee léegi moy jang sax bo mané dara tuutoon lu nga wax ka nga daan aw lool ak ñak jom la bon rek nit ñi lañuy wax fi jaar dembu ah, lool wañu dara léegi man bu ma ko waxee ba noppi ñaan naan kon gànna fii la jaaroon am na ñoo xam fa ba léegi fa laa leen koñ boobee ma mere woon noonu laa mel nii di ma fa jiite foofee ma doon tawte xalaat étage di ma fa jiite am na kooku baa fay tawte mi ngi tawte te léegi bu tawet bi ñëwee mu baase ndax bu boo ko waxul looy wax dañuy wax suñu suñu bàyyi jële waay bàyyi jom gi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah